di nuyu jeunesse bi di leen wax ne Pape Thiam leader politique inspecteur des impôts et des domaines mu ngi ci ginnaaw Tapha Tine alors jeunesse bi maa leen di woo di nuyu presse bi di nuyu amateurs di nuyu ñi nga xam ne ñoo yor euh, CNG de lutte mais également ñëpp teew fi pour jàppale ki nga xam ne mooy Tapha Tine te jógee Bawol mooy wax ne Tapha ñun la dañu war a nekk ci ginnaawam nekk ci kanamam bu xewle lépp loo xam ne lii mooy événement boo xam ne bii dafay laal waa Njaareem dañ ci war a teew dugal ci suñu loxo dem ci ba jeex tàkk dafa jot nag Jurbel am xar kanam bu bees tàq moo tax ñun ñu nekk ay jeunes ñu engagé wu sur le terrain politique mais engagé wu auprès de la jeunesse pour jàppale leen jàppale boo xam ne bii am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem Tapha Tine nag sunu frère la ñun moom lañu am waa Bawol dafa. donc kon lu ma teewee fii lu ma war la man jooy naa tàccu naa yuuxu naa ngir Tapha te tey laa ko gën a mën loolu rek moo ma fi indi maa ngi sant ñëpp di lancé un appel ñi nga xam ne mooy waa Refane Tapha nekkatul sax nitu Refane dafa nekk nitu Bawol nitu Sénégal donc kon képp kuy autorité politique nekk Refane wala nga nekk ci département de Bambey wala Bawol ñu ngi lay lancé un appel nga ñëw soutenir Tapha Tine champion de Bawol. xale bi nga xamante ni moo daje woon ak Bombardier ñoo ngi jàkkaarloog xale bi nga xamante ni Yékini Senior la mu jébbaril fële ci stade Amadou Barry daan ko avec la manière Tapha réew mi ngi lay nuyu biti réew fépp fu doomu réew mi nekk rek ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay maa ngi lay nuyu. waa asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu képp ku fi teew ci stade bi tey di leen jéeglu di leen wax mos a coono di sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suma ñaari waajur comme ni ma koy waxee di nuyu waa Bawol yëpp di nuyu képp kuy fan si Tapha ak képp ku teew ci stade bi ak ku fi teewul maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu képp kuy bawol bawol ak képp ku di njàmbur njàmbur wala saalum saalum wala kajoor kajoor maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp comme ni ma koy waxee maa ngi gërëm sama mbokk xalpulaar yi soose maninke manjaago ak joolaa yi ak suñu mbokki chrétiens yi aussi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu Sénégal yëpp di ñaan jàmm si dëkk bi yal na dëkk bi stable mu bañ a am benn histoire. macha allah weesoo nag. ku ne xam na ne ci bés la ñu jëm ñëpp téye ko rocc ko nga te yaakaar naa ku ne xam na ne bés bu ñu jëm. muy suma diggante ak Boy Niang mu nekk lamb ju mag joo xam ne bu dàqul ci saison bi mën naa ne deuxième lay jël yàlla nay lamb ji fi dàq te yàlla may ñu ci ndam. amiin amiin bu loolu weesoo nag maa ngi ñaawlu aussi li nga xam ne moo xew passé stade muy diggante Papa Sow ak Siteu di ko ñaawlu man am na vidéo yooyu du ma ko seetaan. parce que man daraay du laas du ma ci dox Tapha Tine bu ko xam mën naa ne def naa 16 17 ans de carrière kenn mësul dégg ñu ne kaa leen atte Tapha Tine fii samay supporters it man mën naa ne noonu lañ mel ak ñi bëgg yàlla ak ñi bëgg ak ñi bëgg Tapha Tine te tax noonu lañ mel man laa gis ñoom comprendre ngeen kon nag ñu ngi ñaawlu li xew te xam nga ñi koy def bu fekkee ay nit ñu ànd lañ ak seen sago nañu ko bàyyi ko parce que du image bu rafet déjà ku wax nawetaan da ngay wax làmb te actuellement nawetaan bi tëj nañu ko. Mhm. te lii xew nii buy ñaar di ñett ci ñun la jëm si. te bu jëmee ci ñu rek du baax parce que làmb ji li ci yaakaar dafa bëri. ñun mën nañu xëj na ñooy grand yi. mais tam il faut ñuy sooraale suñu xale yi teg suñu ginnaaw. Mhm. waaw bu loolu weesoo nag maa ngi sant sama mbokki lutteurs yi nga xam ne ñoom laa bokkal tund Bawol yëpp. tey ku ne gis na booy tey ñoom ñëpp teew nañu fii comme ni ma koy waxee ku ma ci lim rek yaa problème waaye Tafa ñoom ñëpp aka ma rek ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci ñoom Moussa Dioum laa ciy cité teg noyoo bi ci loxo mu tegal ma ko ci booy yëpp yaakaar naa ñun ñëpp mooy suñu grand fii kon foofu mot na bu loolu weesoo nag maay sant waa Médina aussi waa Fass Gueule Tapée day arrière day arrière Colobane Médina Rebeuss ñaa joker ak pompier nga xam ne ñoo seq zone bii ñu nekk ak Dakar Plateau bi aussi di sant aussi le maire Bamba Fall bi nekk fii di ko nuyu à waaw loolu weesoo aussi di sant aussi sama président écrit ñu koy wax Fallou fay nga xam ne sànq ni mooy jël kaddu léegi ak Pape Thiam Pape Thiam suma xarit ñoom ñëpp nekk ci politicien bi ak Bada Bada ñii ñoom maire Djib Thiaw xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak Amet Dieye xam nga ñoo ñëpp sumay nit lañ ay ñoom Daouda Tine xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di yaakaar naa prési falu fay message bi jàllale na ko maître Pape seen aussi maa ngi koy nuyu waroon na ñëw fii teew bu ndondol mais yaakaar naa yónnee na fi délégation quoi. ñoom ñëpp ñu ngi pare combat wax dëgg yàlla seen ay soutien ñëw na sama tonton aussi Mor Ngom maa ngi koy nuyu di nuyu aussi Moustapha Cissé Lo sama turando El Pistoro Lo maa ngi koy nuyu aussi ku may jàppale la wax dëgg yàlla. ayca ñoom Senior Lo ñëpp maa ngi di nuyu aussi xam nga ak ñoom madame Mbacke bi ñu bokkal liggéey bi. bu loolu weesoo aussi di nuyu suma Assane Papa Thioune ak El Hadj nga xam ne tout le ñu ngi ci ginnaaw Tapha Tine di liggéey ak moom. waaw di santaat yàlla bu baax di gërëm waajur yi xam nga di nuyu mondu lam yëpp. di leen wax bisimilah rahmaani rahim. kay kay. àcc kon ñu dem ci question yi waaw léegi Tafa tey dañu gis tey dañu gis nga am combat nga woo tundu bawal gépp woo say mbokk woo ba woo responsable politique yi. ñu gis ni da ngaa woote. woo responsable politique yi bés bi moo nu wala adversaire bi ngay dajeel moo toll noonu. xam nga bés bés dañ koy fonk te man dama fonk bés te bés yu mel ni boo ciy dem dangay ngay ànd ak say mbokk yëpp xere la ko quoi doo bàyyi benn nganaay te man lam ji mel na ni kuy doog a bëre grand combat ci stade Diop bii laa bëre woon sama premier grand combat su may deuxième combat yëpp fii laa ko defee te lam ji mel na ni kuy doog a dóor te booy yi may liggéeyandoo ensemble xam nañ ci dara. te balaa ngeen cee xam dara ñu egg ci bés bi incha allahu rabi. yee. waa Tapha Tine. léegi ñu gis ni bëri na ay combat yoo xamante ni bëri nga ko combat jàng. bëri fi ay combat yoo xamante ni sénégalais yi yëpp nangu nañ ni tu es un grand champion. waaye tey ndax xale bi ngay dajeel tey ndax xam nga ko xale bi ngay dajeel amateur yëpp nangu nañ ni xale bi ngay dajeel xeexkat la bërikat la est-ce que yaa ngi sóoraale loolu no nothing talking about aw ma dara dara lu ma koy wax I am working night day maa ngi liggéey anytime aw ma lu may tiit ma ni big man yi nekk ci lam ji man tafaatin maa leen daan kon aw ma benn benn combat bu may jaaxal awma dara lu ma koy wax du noonu adversaire la nag liggéey na boo yàlla may ko muy dajeeg tafaatin bu bés ba laay xaar incha allahu rabi aw ma dara lu ma koy wax est-ce que yaa ngi xalaat est-ce que yaa ngi xalaat xeex bi ci Boy Niang ndax Tapha Tine xale bi ngay dajeel yow leer na la ni xale bu ndaw la bokkul ak ñi dajeel ci yi amateur yi wax dañ ne Boy Niang numéro 2 mi ngi doog am combat ci ay combat am waaye Tapha tamit mi ngi doog am combat est-ce que loolu yaa ngi koy yaa ngi koy bàyyi xel bu baax a bax waa même question bee ñëw rek. Mhm. loolu laa la wax sànq. Mhm. ma ne aw ma dara. Mhm. aw ma dara lu ma koy wax quoi. combat la moom xam na ne am naa combat def ko signé ma signé ko man tam xam naa ne am naa combat maa ngi pare mu ngi pare ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey li ñu liggéey nag bu bés baax la ñu koy wone incha allahu rabi amul leneen. loolu la seen seen dina am xeex yéen ñaar. non bëre door la ñu wax tey bëre simple bi yaa tout boo demee ci àll bi wala nga dem Grand Yoff yomb na ko comprendre nga may nañu ñuy def bëre simple yëpp su may gaañ xam nga mais lii bëre door la ñu wax quoi. bëri dóor kon xeex xeex nga fas yéene indil sa adversaire exemple doo bàyyi dara da ngay bëri di xeex ko loolu la amul leneen da ngay bëri di xeex mën nga ñu wax naka nga préparer combat bi est-ce que combat bi ni nga ko préparé ak ni nga doon préparé yeneen combat yi benn la mooy li ma la wax sànq dama mel ni kuy doog a bëre lan moo waral lool ndax lan ngir fonk gu ma fonk combat bi bougé wu ma fenn lépp fii laa ko liggéey lépp lu ma am Sénégal ci place yi laa ko amee ci salle yi nekk Sénégal ko amee quoi amee wu ko feneen sa adversaire mu mel ni combat bi da fonk lool ndax jóge na fi dem ba bitim réew. préparer combat bi. ci ni mu waree yow nga ne fii nga toog di préparer combat bi. waaw Sénégal Sénégal yaa tout ñam naa fee ñam naa fii ni ñuy pare combat kon xam naa nu ñuy pare combat nu ñuy pare combat moom kenn doo ko wax Tapha Tine comprendre nga euh, daal. dafa combat dafa mel da nga ko oyofal nañ. mooy li ma la wax déggoo li ma xanaa. yow déggoo ma ba léegi de. dégg. dama mel ni kuy doog première combat ni ma ko fonke woon bii moo raw. exactement. léegi léegi léegi yaa ngi jà yaa ngi jàkkaarloog réew mi yaa ngi jàkkaarloog Boy Niang numéro 2 man leer na ma ni mi ngi lay seetaan lan nga koy wax. dama la lakk anglais léegi xam naa déggoo ma ba léegi quoi. akama laa dégg ndax exactement aw ma. akama laa dégg ndax des da langue de mooy speak in the world. aw ma ma dara naa ko baax aw ma ma dara lu ma koy wax. aw ma dara lu ma koy wax. adversaire la bu ma respecté nag parce que xam naa ne champion la moom. ku ma la mais le jour si laay xaar quoi incha allah ma ñëw def différence rek dem su ma yoon. non dañu bëggoon nga wax Boy Niang lan nga koy indi ne ko préparé la. non aw ma aw ma aw aw ma dara lu ma koy expliqué. ah kon yóbbante woo ko dara. aw ma dara lu ma koy yóbbante. xale bi bul fàtte ne day jàkkaarloog yow de te am na lu ma la war a wax waaw na arbitre bi sànni bantu 30 mètres rek jóge foofu. Ah. loolu rek laa amoon lu may wax quoi. li ma waxoon du ma ci dellu ginnaaw bu ma ko nee puusal dafa war a puus. dat clear yeah bu ma ko ne puusal dafa war a puus loolu moo jaadu. est-ce que xam nga ni xale bi ñi mu bëree ñëpp da leen yóbbu latéral defal leen affaire. waaw mais loolu baax loolu moo baax loolu affaire am la quoi man suma affaire mooy ñëw taxaw liggéey li ma war a won ko li ma liggéey is nothing jiyee na ko léegi lan ngay wax réew mi ak ñi lay seetaan. waaw di sant yàlla rek di ñaan ci réew mi ak dal quoi di waxaat aussi li ñuy xew gis ci stade yi nañ ko moytu di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam. looloo fi nekk bu loolu weesoo maa ngi sant képp ku fi teewaa ah. képp ku fi teew maa ngi lay sant di la gërëm aussi di santaat aussi falu fay maître Pape Thiam bi taxaw ñoom Bamba Fall ak ñëpp ñoom Messi xam nga ñoom Mor Ngom xam nga ñoom ñëpp Diop si ah. ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. léegi Modou Anta dafa am benn question bu mu la bëgg a posé. ñu bàyyi la mu posé la ko après ñu bàyyi la ko. maa lay di la siyaar dañu gis na yàgg ngaa dugg Pikine ñoom Malaw Seras. bëre faak ki nga xam mooy Abdou Diouf bëre faak Talla Gaynde bëre faak Ama Balde mais defet boobu aussi tamit say supporter bokk na ci loo xam ne bàyyi nañ ko seen xel nga fay dugaat jëlaat beneen xale muy booy Niang numéro 2 est-ce que xam nga day wa combat bi te aussi tamit pare nga pour rectifier wu tàggoog say supporter ndax defetu Ama Balde mooy li ma la wax sànq rek Modou bi li mu ma jaral yéen mënu ngeen koo xam xam nga du ngeen ma gis yu bëri quoi dama nekk sama roq di liggéey jàpp suma njàmbur parce que man xam naa ne am naa combat te respecté naa ko te combat laa am te maa ngi ciy liggéey incha allahu rabi te bu ñu demee ca bés ba incha allahu rabi yàlla dina ma may ndam man loolu laa ñaan yàlla quoi. yooyu. Eh, Abou Ndour Abou Ndour suñu doyen mi ngi nii moom moom nee na ah. mu ne wàññi poids nga wàññi. nee na da nga wàññi poids. non yéen loolu ngeen gis quoi mais man gisuma lool man moom damay liggéey topp suma ay entraînement rek quoi yooyu. léegi ñu bàyyi la nga wax waaw waaw waaw di sant yàlla comme ni ñu koy waxee daal xam nga di sant képp ku fi teew di sant mëndu lam ñëpp waaw Sakandé alliance tax ci loolu dafa leer barki yonent bi. Eh, lu indi Sakandé bi. waaw loolu sama géem la sama yëfi bopp la buñ cee yëgee dinaa leen ko expliquer incha allah. waxal danaa coppe sa tànk laxasu sa ndigg bari na adversaire yu mu ko def daan leen est-ce yaa ngi xaar loolu sa diggante moom bu ne coppe sa tànk laxasu sa ndigg la cay xew. waaw man li ma liggéey laa gëm quoi du noonu li ma liggéey laa gëm moom la mu liggéey moom laa engagé quoi mais man li may liggéey laa gëm quoi. bu ñëwee xeex yow xeex samp jaaga xeex ak yow. bëre dóor la ñuy wax. Tapha Tine kenn du ko wax ci xeex wala boog leneen quoi leneen ngay wax. waa mais mooy li ma leen wax yéen du ngeen ma dégg tout le temps combat laa am damay préparer combat xam naa ni ñuy paree combat du dégg la weesu nag weesu na ko man li suma kanam laay xool nu mu ko lijjantee nu mu gën a gaawee. ñu baal wax ma jot ma def différence dem suma yoon loolu la ko amul leneen. waaw di sant waa Bawol yëpp ku ne xam na ne tey ñoom ñëpp teew nañu fii maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp di rafetlu seen teewaay ñoom ñëpp tafaati nag équipe lañ équipe ñooy liggéey ak ñoom tey bu ma fi newoon di lim ay tour day compliqué comprendre nga li firndeel na ko tey ñoom Pape Thiam xam nga ngi ñëw teew ñoom falu fay suma président écrit mun naa ne Bawol gépp a fi teew quoi kon loolu sant yàlla la ko quoi. te bu bees ba di ngeen gis lu garaaw incha allah. bi. waaw foofu moo baax. Pikine moo baax. foofu moo baax. à moom laa moom laa leen wax moom laa leen wax ma ne leen man sama fan si club bi gën a mag mu ngi bunt pikin Pikine. du ñuy jël car du ñu jël sept place dañuy dox dem ko buntu Pikine mooy fan Paku Lamba. waaw waaw waaw. woote. waaw waaw waaw bu loolu weesoo nag di sant sama mbokki promoteurs yi ñoom jéey seen di sant aussi xam nga ñoom Assane Ndiaye tout ñoom falu njaay comprend nga Pape du Fallou ñoom Gasson ñoom xam nga yi ne ci làmb ji ñoom Daouda xam nga di sant aussi Daouda automobile sama copain maa ngi koy gërëm wax dëgg yàlla. ak ñoom Tafatine bu kër Ndiaye loo ñëpp ñu ngi tey ci stade bi mais dañoo laxatu ñoom cuun papa cuun hélas ñoom ñëpp. xam nga waa ñoom Bamba ñoom di sant aussi suma fan si club bi Ilimane jël nuyoo bi teg ko ci loxo mu tegal ma ko ci waa groupe yëpp kon loolu leer na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal en tout cas.